asalaamualeykum alekum rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk jullit yi bokk taalib yi murid yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci ndigal ak turu ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf ñuy ñaan suñu borom mu yàggal ko fi lool tam ànd ak wér kàttanal ko ba mboolem naa li mu am ci liggéeyal Serigne Touba moom mottali ko lu kawe jot ñuy dellu siwaat fii nag tey ci niñ ko baaxoo defee ci li ñuy tudde euh, wala athari cheikh ni ko sëriñ Fallou waxe léegi muy loo xam ne bañ ko tàmbalee léegi yàgg na liñ ci jublu bi nag weesuwut topp jeexiti sëriñ Touba ndax sëriñ bi fi mu jaar dafa bari ñim am lante dafa bari ñi ko topp itam seeni jeexit dafa yaatu kon ñett li seeni jeexit ñett li jeexit Sëriñ Tuubaa la moo tax nag ngir màggal gi xam ne mooy dajewukaay jul ji ak taalibe yi moo tax ñu xalaatoon at mu jot at ñu tànn génn fànn wala benn gox ci réew mi ngir bu fee bu dee barab bu sëriñ bi masa jaar la ñu demaat fa fàttali la taxoon sëriñ bi jaar fa ak la fa xewoon bu dee barab boo xam itam ñu am lante woon sëriñ bi la mooy itam ñu defe ko noonu ñi nga xam ne itam jabooru sëriñ bi lañ wala ñu àndoon sëriñ bi itam ñu defe ko noonu ndax ñoom kat xam le leen mooy xam le sëriñ Touba moo tax at mu jot dañuy tànn kenn ci jabooru sëriñ Touba tànn kenn ci bokk yi bokki sëriñ bi tànn kenn ci cheikh sëriñ Touba yi tànn léeg-léeg ñu tànn leen ci ñi nga xam ne ñoo bokk ñoom lislaam bokk ñoom réew mi hmm. déet ku ci ne am na ci barab yoo xam ne lañ seqoon ak sëriñ bi yàgg na te ren ba histoire boo ko dul net li di ko fàttali wala nga di ko bind bu yàggee day mujj mel lu far kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la liggéey bi nekk ci seen loxo ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm di leen soññaat itam ndax na ngeen xam ne seen liggéey bi liggéey bu yaatu la liggéey la bu am jeexit ndax jeexit ji mooy ña ngeen di fekkee ñooy dil si di ko wax euh, Serigne Sidi Muxtaar am na ay yoonu yoon at mu jot moo may fàttali ne ma liggéey boobu ñuy wax caravane bi de xam naa lu lu soxal bokk julli ji la ndax ñoo ñëw bu fi di ma ko wax bokk taalibe bi itam noonu la leen itteele moo tax ren jii ñi nga xam ne tànn nañ leen ngir fàttli leen ak euh, fàttaliwaate lañ seqoon ak sëriñ bi ndax bu màgg li xasee ba dugg day xat ba am na ci loo xam dañ ko mën a war a leeral duñ ko def wala daal ngeen xam ne dañu ngeen koy cantuk sëriñ bi ak ngërëm bi nga xam ne Cheikh Sidi Moussa bàyyi ko ndax ci biir ak xilaafam la liy tàmbale bi mu fi bàyyi ko itam yoon wi lépp lu ñu def ki fi nekk sëriñ Touba moo ci sañ a digle moo ci sañ a seq benn jéego te laaj ko ci digal daaw bi nga xam ne yéen a ngi tàmbali liggéey constance laa daal di jóg laa ko yëgal sëriñ bi leeral ko ko lépp ba xam ni mu daal di mu jox waa ci digal yeesawaat ko ren ji itam laata ñu seqwaat benn jéego demaat nañ ba ci moom laajaat ko ci ndigal mu jox waat ndigal kon ngeen xam ne li ngeen def ci ndigalu sëriñ bi ngeen koy def kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan itam ci barke Sëriñ Tuuba li ngeen ci fas yéene liggéey Sëriñ Tuuba yàlla na ko Sëriñ Tuuba nangu amiin ngeen ci daje ngërëmam yàlla na leen suñu borom aar sàmm leen ba ngeen dem ak jàmm dellusiwaat ak jàmm te day ceeg ndam loo xam ne mosuñu ko ci am. ñu ngi leen koy ñaanal bu baax te da ngeen ci rafe jot ndax euh, ndigal moom lépp lu ko loo xam ne euh, jiitu na ci rek yaakaar mën na caa tege kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di fàttali itam nag euh, ni ñu ko daa waxee bis bis bu njëkk ci safara muy suba ci altine ji lañ war jàng alxuraan bu fekkente ne ndax weer day feeñ wala mu ñàkk feeñ comme guddi xasida bëgguñu woon mu nekk lu lu weesu bisu bis bu jëkk ci safar moo tax ñu jàpp ko suba ci guddi jàngu alxuraan bi itam ñu jàpp ko ginnaaw boo xamee ne ñaari kilifa yi nga xam ne ñoo koy taxaw ku ci ne eh, jot na la ko ci ndigalu sëriñ bi bañ déggoo ci ka jiitu ci wàllu alxuraan di cheikh Serigne Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo koy taxaw ànd ko Serigne Khady Diakhaté ba ca del dolli ko waat it mooy euh, Serigne Hamsatou Mbacke ibnu Serigne Souhaïbou mi nga xam ne guddi xasida gi mooy jëwriñ ji moo koy taxaw ñu fas fas ko yéenee ànd ak moom ci penk jumaa ji delloo lépp toroxlu dellu ci yàlla euh, teewlu Serigne Touba hmm. jàngi xasidaat bi ñaan màggal bi jàmm njëkk ci mujj ci te lépp luñ ci def itam day see ngërëmu Sëriñ Tuubaa te dara loo xam ne mbirum àdduna la bañ ca tabbi dara loo xam ne lu dëppoo wut ak bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa bañ ca tabbi kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu Sëriñ Moodu Mbàkke nii nga xam ne moom la Sëriñ Abdou Lahad ci liggéey bi mu jiite ko moo ñu ngi ko àndal jëm ñëpp di Sëriñ Fàllu ak euh, Sëriñ Gànna Mesar ak ñi nga xam ne dolliwaat nañ leen ci ren xëy na këyit yi nekk fekkuma fi ba ma mën a lim tur yëpp waaye bu ñu xasee tudd ñi ko jiite rek ñëpp tàbb nañ ci biir da ngeen xam ne sant nañ leen gërëm na leen ndax liggéey bi ñu ngi ko topp waaye gis nañ jeexe ji gis njëriñ li kon yàlla ngeen ko yàgg def doy cee tawfeex doy cee ngërëm suñu Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh